ku lim juum mooy tax dañ may baal lim bi bala maa juum waaye am na ko wax nit doo juum danga nga dul matal bu ko defee rek kon ubbi yëf yi rek lañuy def jox leen ngeen dawal jàpp naa ne mbir mi ñaari fan la dangeen def lancement bi fii ngeen waxtaan ci moom di ngeen xam ci moom ci lu rafet suba insha allah maa ngi koy waxtaan léegi ak monsieur Touré fan yëpp ñu ngi ciy dox dañuy ñëw ca kër ga wax naa daara yi alxuraan yi insha allah bu ñu julee deux ñu teew dinaa ñëw ci kàttanu yàlla bu nu ko yàlla mayee ñu jàng fa kaamin defal ko ñaan moom ak i way juram ak ñam fekk ñëpp aljana ak njaboot gi mu fi bàyyi yàlla defal leen sutura dafay am koo xam ni su juddoo ci famille bàyyi lay tudd donte mooy caat mi ndax taxawaay boobu dafay taxaw te loolu mooy Mamadou su juddoo ci gox chef de quartier lay nekk ndax ni ko yàlla toral te loolu mooy Mamadou su juddoo ci wiil maire lay tudd ndax ni ko yàlla melal daanaka da ku ko mos a tudd monsieur le maire nga koy wax su génnee reson bi mu dëkk chef d'état lay tudd te mooy Mamadou réew mépp a ko xam ku ne am nag yow relation yu rafet jëflanteeg yow jëflanteeg yu rafet damay jàpp ni sax bu ñu waxtaanee yaa ko yoreel waaye yoreelu la kon njiitu réew lay tudd ci réew mi mu nekk su génnee réew mi nag ab monde lay doon noonu la yàttule gis naa fi léegi ci saal bi nit ñu xonq kon loolu day wane li mu doon li mu am ci ay relation yu particulier yu nekk ci biti kenn xamul nu mu toll ndax yaatum ndax baaxal ñun ñii fi teew gannaaw yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy dogal su ko ne mënee jaar ci sant morom ma moo ma doo tax wax naa ko keroog bi ñuy ñaanal way juróom seen ñaanu bàyyi gii ngeen mujj a def di wax ne lu ngeen xewle yeenu waa kër Baye Jabel bu leen ci ngort du yéen moom moo ko bay jural bàyyi jabel doom yu ko xamut moom doom yu xamul bàyyi jabel amuñu sax benn relation ak yéen yaatuwaayam moo egg ci mu liggéey ko ba man ma bokk ci biir keneen bokk ci keneen bokk ci noonu la ko yàlla tolal moo tax gu gudd fan la nit dana gudd fan lool te fanam gàtt am ko gàtt fan lool te fanam gudd parce que liggéey baa tax rubba uffin xiimatan ka alf wa rubba alf xiimatan ka uff yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne am na kenn nit koo xam ni saa yu taxawee individuellement fenn taxawaayu nation yor peuple bépp da leen di représenté fenn waaye am na koo xam ne bu junni teewee te ñëwul kenn ñëwul moomut nag fu mu teew teewaale njéeyu ñëpp xam ngeen ni amoon na kilifa muy sëñ Abdou mii ñépp seere nañ lool waaye sama jataay bii sama jóg moom rek moo ko man ku sir sar salaa tey yéen xam ngeen ko waaye lu mu ma fekk ma ba ko fa te jóg noonu moo liggéeyee ba am ma ne la ko defee crédit ne yëpp tàngam lu wuloon kenn seetaanul kenn nu mu mane nu mu xamee nu ne def na ko ci nit moo tax ñun ñëpp dañuy maasee wax rek ne yàllaa man yàlla nañ ko yàlla fayal nit bu génnee àdduna yonent bee ko salaam suñu ko suulee ba wane ginnaaw sept pas juróom-ñaari jéego suñ borom daf koy dekkal ba noppi paralysé ko yaxu digg ginnaawam gii lañuy ñuy nga xam ne mooy tax nit mën a jóg suñ ko décroché ba mu yolam dootoo mën a jóg sidit boobu la yàlla di dindi mais daf koy dekkalaat waxtu woo toogee ni moomadu mu dégg ko ci saasi yaa xam nag looy seede ci moom bu dee jàmm muy ree di la delloo jàmm bu dee leen ka salika moo tax à l'occasion na ñëpp def jàmm ginnaawam du woon xeexkat du xulookat Momadou defarkat la boolekat la moo nu boole ñun sant yu bokkul yi ci biiram kon nu ngi ñaan ñëpp nu ànd mobilisé wu nekk benn nañu ànde woon tamam mu liggéey ko nu àndee woon ku bëree ginnaawam moom mënta jóg te bëgg naa bokk ca bëri ba yaa ngi koy sonal ku def jàmm ginnaawam noppal ko mu tëdd tëddaay bu jekk te ñaanal la yàlla lu kenn yoroon doyu ko su ko fukk dee séddoo du doy te moom kese li mu yoroon doyu ko woon kon li mu fi bàyyi doyu leen noo ngi nu rafetal maa ngi dénk loolu sama bopp di ko dénk jengeen di ko dénk ñi mu bokkaloon parti di ko bokk di ko dénk ñi fi ne wax naa keroog ca dëj ba ni moom école la dëjëm bii boo xam ne ñoom ñii ak ña ñëwoon ñëpp ku ne man naa tirer leçon ci dëju moomu bi ñu fa teew keroog mu dajale leen ci benn takku takkusaan ku liggéeyul ni mu liggéey mënoo ko njiitu réew sax dee na te amu ko xalif général dee na te amu ko te moom liggéey na ko ci benn diir bu gàtt diggante armeel yi ak këram ni ñu soree foo sànni mbàtt bu takk lu waay niw niw kattan teew nga ku mag ak ku ndaw ñépp bokk lu ñuy sentir mbaaxam a tax kon da yëngu ci waa bay waaram ci àdduna rek waaye suñ ko mënoon tudd dëgg dañuy wax ni du homme politique nitu diine la suñ ko mënoon tudd dëgg loolu nga koy waxe waaye comme politique nag c'est bon baax na ba tey ñu jàpp ne politicien la waaye politicien yëpp nañu roy ci moom ku baax ngi noonu ku goree ngi noonu ku yaatoo ngi noonu yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla defal leen jàmm yàlla defal nu sutura barkeen bi alayhi salaatu wasalaam nu baal maax ku nekk ci nun nu jàng fatiha na ko lay def te ubbi onze bi di nuyu suñu mbokk chrétien itam wax nga ko léegi dafa yaatu alxuraan nu wax ni yéen waa kër rasulillah laa nu farrixu bayna ahadin min rusuli fu ngeen fi dégg ko yàlla yónni xaalu wax leen samihna wa atahna xufraanaka rabbana wa ilaykal masiir rasulullaay seen kilifa waaye cent vingt quatre mille prophètes yi am ci nekk ay nabi ay anbiya cinq ñoom la alxuraan tudd cinq ñoo ci ulul asmi yonent bi génn gën nekk en tête waaye mu ne bu mu teree ka njëkk a commencé muy aadama ba ci mujj ñëw muy Muhammad kun ci tudd turam julli leen ci moom te ñaanal ko seen yonent la wax nit ñi ñëpp ci diine lislaam lañ doon tënku yonent yëpp diine lislaam lañ doon tënku waman yabtaqi xayra islaami diinan falan yuqbal minhu loolu suñu borom wax yonent yàlla aadama lislaam la indi woon noohin si sa xeesaa ba ci moom diine lislaam la woon moo tax bu leen am distinction maanaam di xajjatle diggante yont yàlla insa ak yont yàlla mu wet ku tudd xeesaa ci moom yont bi wax ne sama mbokk maa leen gën ci moom la preuve tension ha bii ngay gis mu ne suba la tam xarit chrétiens ñoo ko daan woor yonte bi di ko def ak ñoom ci la waxoon ni bu del see di fukk na ngeen woor yéen tam teg ci ndax maa leen gën a yey ci yonte yàlla insa gis nga kër julit boo dem danga nga fa fekk insa man am naa doom bu ko tudd am naa doom bu tudd Mariama di fa fekk Moosa di fa fekk Ibrahim di nga fa fekk Noohin di nga fa fekk Yaqubu yonent bee yaatu lépp ci biiram la nekk mu saddixal li ma bayna yadayhi kon nun ak chrétiens yi ak ñëpp yonent bi nee na benn nanu nañ bokk yoon wu jaar tool bee yaatu kii bay fii côté bi kiy bay fii kii bay fii mais l'islam ñëpp ci lañ tënku l'islam mooy mission suñu borom bu muy jox jaam dama demal waxal ma lii ku ci yokk leneen yaa ko ci yokk kon nu siyaar leen bu baax yéen tamit ndax ñu ngi ci salle bi nu dellu ci li ma waxoon ku nekk jàng fatiha benn yoon te jiital a'uuzu billahi mina seytaani rajim def bismillahi rahmaani rahim doo ko def fatiha bismillahi mina seytaani ku mën a jàng kursi yu nga def ko ku ko mënul nga julli ci bi wa ala alihi xaqa xaatiri wa miqdaari al allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin bi hadadi anfasil maxluqaat allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad بهدد أشهار الموجودات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد حروف اللوح والدهوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهدد البدايات والنهاية من المخدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بركة maa ngi jégalu ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah indi te monseigneur André Guèye euh, adressé ko monsieur euh, à monsieur Djibril Touré bi président organisation journée yi def ko ne maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi mu ma jox te mu jëm ci euh, célébration mémoire Mamadou Dieng maa ngi la ciy gërëm bu baax a baax ndaxte woy ki dem doonoon na ab exemple ci cawarte gi mu amoon ci di jàppale mbootaay euh, nation bi population yow ci sa bopp xam nga sama diggante ak moom nu mu demee woon diggante bu dëgër la woon man nag dama mos di ko encouragé ci projet politique bu mu amaloon Sénégal te it doon naa doon naa sàkku ci moom ay ndimal mu jàppale ni jàppale ñu ñun ci suñu activité yi te mësu koo bañ daf ko mos a def saa yi ñu ko sollicité wuyu na looloo tax mbégte la ci man ma jot invitation bi nga ma jox waaye nag date yi ñu jàpp di le 24 ak vingt cinq décembre dafa tombé ak euh, euh, xew-xewu catholique yi yiy féete vingt 24 ak vingt cinq décembre maa ngi lay ñaan nga nangu euh, li may joxe astuut bi may indi barewul nag ñeenti junne la rek mais pour jàppale leen ci organisation bés bii ñaari bés yi maa ngi leen di xamal di leen assuré ni euh, bokk naa ak yéen ci tiis bi waaye bokk naa ak yéen aussi ci ñaan yi ndax waaye kii dem yàlla na ko ndax yàlla mën koo euh, jéggal ibaakaram te dugal ko ajana maa ngi lay ñaan yooyu itam Djibril Touré message bi nga yegge ko mbooloo mi te ak mi ñuy teew ci bés bi yëpp jërëjëf. yàlla nag dafa dogal très ñu partagé lu bëri ci wàllu yooyu vraiment moom comme dafa nekkoon nit ku courtois même bu ngeen waree mën a am sax divergence ci yenn questions yi moom loolu daf koy considere comme des questions secondaires jiital li leen boole te lal nga mu yooyu mu nekk ci moom. Euh, yàlla dogal na ci wàllu liggéey biñ demee ba 2014 ah suñu boroom dogal jaarale ci doomu aadama yi ñu dénki ñu mairie ville de Thiès bi te ma gis ne bokkoon na ci ñi ko doon sàkku li nga xam ne moom laa njëkk def mooy bu ngeen seetloo euh, ci conseil ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci bureau yi yaakaar naa ni kuréel walla mouvement walla parti bu ci am ñaari adjoint jafe na noor Issa ma nga fa boobu poste boobu Mamadou Dieng lañ ko jox ville Ndeye Mbacke mu ngi fa te poste boobu Mamadou Dieng lañ ko jox ndax maa ngi leen di xamal ni su Mamadou Dieng nekkoon ci list proportionnelle ba nekk conseiller su nekkul maire dina nekk adjoint loolu leer la puisque ñëpp xam nañ ñi mënoo nekk di liggéey dëkk bii ñuy wax Thiès ba pare di teg Mamadou Diané looloo waral bi ma ko seetee dama ko xamal ne ko tey su may considérer quelque comme maire honoraire dans cette ville d'abord yow la ensuite docteur Amadou Ndiaye ndax seen liggéey la loo xam ne boo ko waxee kenn du ko weddi ci biir Thiès. ndax nag ku gis ku la man da ngay xam ne diwa la man dangay ngay nangu ne moo la man waaw dafa am ñoo xam ne dañuy jël li ñu moom téye denc ci ay banque wëlbatiku di jël li ñu moomul di xañ néew ji doole yi di denc ci banque di wut ci àdduna bi fu ñu mën a placer moom muy jël li mu moom ak lu mu mën a lijjanti ci àdduna di jox nit ñi loolu ñëpp xam nañ ko donc c'est quelqu'un qui donnait tout et ne prenait rien générosité loolu lay tekki loolu mooy générosité ci boppam ma ne ko ma bëggoon nag comme sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàll woowu man nga nekk le conseiller spécial chargé des finances amul dara loo xam ne dinaa ci dugg ci wàllu finance te duma la ko laaj et noonu la demee amul ci diir bi nga xam ne moom nekk nanu lenn loo xam ne def naa ko mu concerne mbirum finance te waxuma ceeg moom mais yàlla dogal relation yi gën a dem ba gën a dëgër yaakaar naa ne njabootam xam nañu ne ah tam xarit daal def naa bi ko fi mujj bi ko fi mujj fekk si këram laa ko defee ànd ak sama soxna te yaakaar naa ne tam xarit bariwul luy nit di génn këram di ko defi feneen euh, ngir lan ngir won ko rek naw giñ ko naw ngir jéem ko won puisque le role du maire c'est de représenter la ville bëgg rek wax ko ne ko wàccee sa ngi lay gërëm ginnaaw bi nu sante yàlla tax nag ñëpp amel nañ ko ko de ñu ko wax ak ñu ko waxul loolooy li am te bëri na lu doon dox ci suuf ci régler ay conflits aussi c'est une dimension beneen nit ñi li ñuy gis rek mooy am na xew-xew bu am fii def na ci nangam walla teew na bu jagadee sax day teew bu nelawul la veille sax day teew mais bëri na ay conflits yu ma xam man dans cette ville yoo xam ne ci lu wér bokk na ci ñi dox ba mu saafara moo xam ay conflits yu concerné dëkk bi yépp moo xam de conflits personnel yu ay nit am bokk na ci nit dina jóg am bor mu jóg gàddu bor bi man defal na ma ko man defal na ma ko teewe naa it mu yëkkati def loo xamante ni waa ville la ko war a def te moment boobu comme dañu amoon benn conflit ak ki war a génne xaalisu ville mu xam ko mu yëkkati xaalis joxe loolu fekke naa ko comme fekke naa ko nag moo war a it ba mu wàccee liggéey it ma ni ville yoreel nañ ko te comme du lu ñu bind fenn man maa ko gàddu maa ngi sant yàlla ba mu ma mayee kàttanu joxe ko. waaye bëgg naa it ñeneen ñi ñëpp joxe ngir lan ngir njabootam daf leen daan xañ di jox ñëpp kon tey képp koo xam ne ñaari dërëmam nekkoon na ci yow ñaari dërëm yooyu moom moomatu ko njaboot gee ko moom tey nit ñi ñoo war a wëlbatiku di delloo. au-delà même de koo xam ne daf laa yoreel nga maanaam danga koo yoreel mu doon bor am na ñoo xam ne yoreel nañ ko te tuddewuñ ko bor ngir danaan def ci ñoom suñu borom def ci ñoom tuuti kàttan ñooñu dañoo war a fay kenn du leen ko réclamer nag mais daf leen a war ndax lu war rek dafa gën xam nga lu tax loolu loolu dafay tax nit ñi gën di sawar di def lu baax parce que da ngay gis souvent nit danaan la waa yow yaa ngi def bàyyi sa waa kër gi nangam ak nangam ak nangam moom xam na ni waa këram tey xiifuñu am na ñoo xam ne ñoom tey leen xiif tey lañu ñu mar tey la ñu bëgg a faju mënuñu faju tey lañu ñu bëgg a jàngal seen doom mënuñu ko moom xam na loolu mu di ko def mais àdduna day dox bis ñëw ci jëmm nekku fi mu fàddu bu boobaa nag kenn ku ci nekk da nga war a dawal sa xel am loo xamante ni war na nekk ci yow xam nga liñ ma liñ ma bëgg ma waxtaane ko mënuma ko waxtaane lu dul ci nii mooy du loo xam ne dafa formel puisque formellement Mamadou Dieng n'était pas un maire mais Mamadou Dieng était un maire loolu sëñ Assane Kane wax na ko firndeel na ko Mamadou Kane était un maire mais amul titre bi ma sant yàlla bi nga xamante ni tey jii ci lii may àggale ci wàllu bi moom bokk na ci ñi may liggéeyal ngir ndegam dem na ba benn jamono mu ni wut naa maire vingt ans ba nga ko nekkee ma xamante yow bu wutatuma kon léegi loolu soññ la ci mat que yu may def dinaa xalaat est-ce que bu doon moom dina defe nii donc tuddee bi ñu ko tuddee finale coupe du maire lu ndaw la mais c'est un acte symbolique jataay bi ak bi yi xew suba Euh, lu am solo la et vraiment je tiens à remercier au nom de l'ensemble des Thiessois vraiment les camarades du PIT bu ko defee ñu jottali ko le président Mansour si moom moo moom moom moo ma jàngal moom ma jàngal jàngal na ma jàngal na ma mat bi may def quatrième amel naa ko àllarba mais comme tey du àllarba nañ xaar ba àllarba moom. ak amaat Camara moom itam jàngal na man la njëkk a jàngal anglais classe de cinquième waaye ñu jottali ko le président Dansokho comme nee nañ xalaat bi ci moom la njëkk a jóge te même bu njëkkuloon jóge ci moom it ñëpp xam nañ ni dina méngoo ak xalaatam ndax c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour nit c'est quelqu'un kii peut avoir des divergences ak nit ba pare sàmm kóllëre bi en tant que nit ak nit loolu ñëpp xam nañ loolu. et d'ailleurs dama ko wax souvent ne ko li lay dugal tout le temps mooy sa sa affection booy am ci ay doomu aadama parfois da ngay émotif puisque loolu da nga koy bëgg a génne et parfois boo waxee nit ñi duñu gis contexte boobu ba nga xamante ni parfois ñu dëkkal ko sax fu mu àggul loolu ñu ngi ko koy jottali te di ko ñaanal tamit suñu boroom yokk fanam te wéral ko xam nga euh, ñooñ ñëpp dañ ñu xeexaloon Lat Joor bii ñu toog la Lat doon def ñoom moom lañ doon def ci beneen jamono donc ñun ñëpp dañ leen ameel njukkal comme il a ci former kii tax tey jii ñu toog fii contribué na ci formation parce que Mamadou bu demee nekk foofu nekk fa ak ñoom ba pare def fa ab diir am na lu ko neex ci diggante bi kon ñun ñëpp. dañu dafa jaadu ñu gërëm ñooñu parce que ñu ci bëri ñun ñoom ñun fekkewuñu bañ fi taxawee di def loo xam ne moo nu fi tax a toog nag quand on n'a pas été de certaines batailles le minimum d'honnêteté et de courage consiste à reconnaître la valeur et l'exemple de ceux qui ont souffert euh, lu nu wax rek du doy Mamadou je pense que meilleur hommage bi ñu ko mën a rendre mooy euh, di jëfe maanaam di jëfe li mu gëmoon moo tax maa ngi sant lool bi ma fekkee Pape Gali mi nga xam ne moom ak moom dañoo bokkoon liggéey keroog gis naa ni njaboot ga mu bokkoon ci wàllu liggéey ba muy ñëw directeur général ba Pape Gali mii la yebal moo war moom post ba mu yore woon ci man ci sama wet moom mii laa ko dénk te yàlla xam na ne moom xam na ne xaw ma ko woon de waaw mais ndegam ñamu bokkaloon liggéey moom la ñu doyloo woon pour yebal ko ci bisam ma wëlbati ko ne ko poste boobu moomu dañee yoroon ci ñun yow lañ ko bëgg a dénk te it mu wone ci loo xam ne war nañ cee mën a am yaakaar kon ñu delluwaat ànd ak ñëpp di sàkku ci tey ci suba ak ci yeneen bi yi saa yu buntu amee ñu di ko ñaanal waaye di ko ñaanal ak di sàkku tamit ci njabootam lu ñu gën a mën a bennoo mu gën a baax waaw loolu nag day farata nag waaw njaboot gi moom Maodo lu ngeen ci man ci ñu gën a bennoo yéen a ngi ci yoonam su bennoo amul rek ci ngeen yoonam. te kilifa gi nee na ku wàcc yoon wi jël ñàll wi fa ngay mujje mooy fii fumu mu parce que da ngay réer bennoo boobu moom ah ci biir njaboot gi lu war la loolu nag lu ñu la dénk la ndax bu ñu dee def hommage aussi dañuy sóoraale héritage fàttaliku ne kii amoon na jaar-jaar amoon na ngëm am na ñu mu fi bàyyi te ñu leen tuddee njabootu deret am na ñeneen ñu fi bàyyi ñu dul njabootu deret tey njaboot mais njabootu deret dañu am responsabilité boo xam ne ñëpp nangul nañ leen ko bu soobee yàlla yaakaar naa ni ci lu yàgg ca kanam di ngeen yàgg a dégg mbedd mi Mamadou Dieng lii Mamadou Dieng lii Mamadou Dieng parce que da koo liggéey li ma koy tëjee nag mooy euh, fas nañu yéene soumettre euh, conseil de ville yenn initiative yu koy concerné don benn rek boo xam ne ñëpp xam nañ ne këru xale yi bi ñu bugg a defar daf ñu ñor maanaam xale yi ñuy nekk ci mbedd mi neen ñi di leen tuddee enfant de la rue mais que j'appelle man enfant dans la rue parce que amul enfant de la rue rue bi moom jurul kenn waaw mais ñi ngi ci mbedd mi nag ñooñu daanañ ci waxtaan ba nga xam ne bëgg nañ taxawal centre d'accueil bu mag ñu tuddee ko kër xale yi incha allah fas na ñu yéene kër xale yi bu juddoo ñu tuddee ko. moom nag moo daan wax ne waaxu giléem moom xajul ci pantere waaw loolu Mamadou Dieng ko doon wax waaxu giléem xajul ci pantere loolu moo tax yéene bi am na diggante bu mu xajul mais ñu ngi xaar ba yegg foo xamante ni waaxu ba ak daw ba dana fa mën a xaj bu boobaa nit ñi teg ci seen bët jërëjëf